Sénégal Plus. Mi je suis hyper bien abadan son la abadan wow, comme à jamais pour toujours on peut dire à jamais carrément à jamais abadan Diamond. Il yow eu di loo On ne du dire, même si vous êtes yéen ñaar vous serez ensemble. je préfère sur scène parce que artistes yu si bëri dañu tële ci biir scène Guys, studio rec, je préfère ci kaw scène ñu ñaagante ko. xel ak xol ñaar yooyu kenn mënu ko dissocier ñaar yooyu ils vont ils vont de pair xam nga boo leen bëggee dissocier benn boo ci éliminer beneen bi dafay éliminer parce que bii mooy jox doole bee bee mooy jox doole bii. taal moom damay gën a taal sama bopp ma gën a taal fay ma fay ñi nga xam ne li ñuy baax li ñuy def baaxul quoi ci dëkk bi bàyyi ko suba. pour mu gën a bëri gën a baax parce que quand même ba pare am na leçon bu ci nekk ah mais il faut être patient parce que soo ma ko joxee léegi certes dinaa am xaalis su may dem mais ma xaar ba suba ak patience boobu noonu mooy gën a bëri donc bàyyi ma bàyyi ba suba dama bëgg ñu bëgg ma donc je préfère ñu bëgg ma ba pare ma bëgg je préfère être aimé bu ñu la bëggee ki la bëgg am na effort yu muy def tôt ou tard da ngay bëgg Baye il est trop bavard trop trop trop trop même mais Baye bi affiché aussi scène bi dañ ko créer entre guillemets donc comme loolu lañ koy def lo, il est obligé mu def loolu non. mais Baye il est trop bavard. j'ai une copine jalouse et capricieuse en même temps bon j'essaye de gérer avec l'aide de voilà. de yenn nit yi quoi. je veux pas citer. mbalax ba mu saf sap, gi dara gi tatak rëgg sagit tatak rëgg sagit na saf ça. non rab moom baax quoi bàyyi ma bàyyi ko gay, gay gars e góor day dëgër këj non na dëgër nag quoi quand même lu nooy ñu bàyyi ak soxna yi soxna yi ñëwee fii nooyal ko ñun góor ñi bu ñu ñëwee na dëgër foo war a dëgër quoi quand même caaroy sur guddi guddi caaroy kii caaro yi comme je dis souvent ah, dëkk bu gën a paisible ci Sénégal mooy caaro yi sur mer si Afrique de l'Ouest sax laay wax parce que caaro yi xàmmee ñi bokk ak ñi bokku ça veut dire que ñi ñëpp a bokk loolu caaroy rek la am caaroy mën nga dem heure bu la neex fu la neex dara du la si fekk caaroy 3 h du matin bo xifé da ngay génn dem jëndi lek alors que ci yenn zone yi sañoo ko parce dañ lay agresser wala dara dal la caaroy moom yooyu amu fo quoi franchement man tangana mais dara du tangana yow est ce que xam nga tangana 2h du matin caar yàlla bo dem tangana ibu ben omelette brochette affaire yoy non gisuma lu dakh loolu man fu mu mënti dem goudi goudi may ga ibrahima moom nee na daf la bëgg dafa bëgg nga nekk kii mu jiital moom nee na yaa di kii mu gis nee na ci ñoom ñëpp yow rek la bëgg jiital Sénégal ay son bii lañ bëgg Caaroy 44 fa laa jàngee ba troisième mu génn donc sem Caaroy 44 tout ce qui est Caaroy moom Caaroy France yow foo xamee loolu non sa waay il est rek <laughs> doo dem ba xam tur yooyu noonu si problème day amna na quoi parce que man étudiant là en même temps chanteur là mo xol mo xol mo xol mo xol je passe ma ngi ci kawam bu baax a baax a baax a ngi gérer bu baax métti mais on gère parce que lu métti góor lay dal ñu def son original sama son bok gars yi moom lañ gëna bëgg ko Covey Covey c'était juste pour me préparer Covey mom bon je dirais pas que parrainage mais suma démon demoon defat tamit non du ko tuddee Covey quoi remix la koy def def lenen Vraiment, s'il trop la solitude, mais quand même, je suis. des fois, des fois, je suis en groupe, mais j'aime trop la solitude. J'aime trop, trop, trop, trop. parce que nak dafa bari bari bari bari chaque jour dina am une heure de temps yu may te dina am temps bu bari bu may sama nek man donc j'aime trop di man les deux damay lire et j'écris beaucoup le courage parce que talent sans courage dara nga mar am nga récipient mais amo ndox bo ci def malheureusement bu dee da nga mar nga am ndox fi nga mëna nan té te yenn ak ndox bi peut-être bu nekkee fenen fo xamné ne du récipient ci géej wala ci leneen di nga nan parce que courage bu da nga am talent té amo courage bi ko boosté talent bi du dem fen fen fen fen mais amal courage te amo talent ñepp mën nañ la dégg li nga bëgg mën nga ko am parce que da nga gëm li ngay def da nga pare pour son ku ba nga jëm daa sori xaar ga fa jëm def nañu muñ tañu dem gaar ga dëkk ba nga jëm daa sori saxaar ga fa jëm dee xéena laa ilaha illa woo non je l'adore Ngaaka Mbaye carré man moo gën a percé si man quoi moom laa gën a sentir parce que euh, message bi ci nekk dem ci jigéen ñi et tout ça ba pare ba pare man dama gis ay diggante yu defaru ndax dénkaane j'ai vu ça nii directement donc dénkaane quoi non ceebu jaga nag gisuma lu ko daaxu quoi franchement dafay xool bi ci digg bi daf nii sa waay loolu yàlla buñ ko toogee caaroy gi non je t'invite gisuma lu daaxu loolu si a mature quoi pour dire vrai mais sa waa ji fan nga jëlee sama <laughs> nañ ko woowee pël bi moo ma gënal waaw je préfère quoi parce que pël bi man comme laa kon moom laa koy woowee na ko ñëpp woowee noonu pël bi borom xolu jamono bu ma ñibbi suuf tëdd bi may génn sànq xam nga la la ma wax kaame jox la reer malheureusement bu may jox du ma mën a du bañ quoi ma ne ko indi mu jox ma 500 ni ma jënd reer imagine xool lu ma am quoi non je l'adore kooku may def voilà munuma munuma munuma wax si moom bul yàq sama émission. ñaar yooyu noonu benn bu si manqué day feeñaa mu nekk fa ngay dégg. dun dun dun dun dun मेरी देख टन टन टन टन टन टन seconde chance bu fekkee defagul mu ngoy doora def mais bu fekke daf ko def defat, defat, defat. on tourne la page wala ñu brûler livre passe à autre chose polygamie le signaler polygamie mais ben jabar la damay signé polygamie pour sama jabar xam ne bu dof dof loo rek moo topp keneen mais nag benn jabar laay am quoi. non jullit moom day baale quoi pour dire vrai baaleel soo mënul baale tourne la page nekkal ci leneen mais fayu moom du yëfu jullit quoi des fois ñu tooñ la nag tooñ bi métti métti mais bul bul bul fayu parce que jullit mooy ki nga xam ne day mer mais tamit mooy ki nga xam ne day baale. football xaw ma ci dara dara dara dara dara benn joueur laa wallaay waaw waaw fu bëkkay baax na vrai mooy primer toujours ci lu faux ah lu faux moom lu faux kese la parce que tamit joie boo xam ne c'est faux c'est fausse autant pour moi loolu tristesse la donc lu vrai mooy primer ci levant c'est genre j'aime beaucoup faire xam nga en plus xam nga rek booy Sénégal boo fi nekkee boo simple da ngay nelaw de <laughs> boo simple da ngay nelaw boo simple gars yi man yéen laa waxal yi ak keneen ku mënti doon soyez pas simple ne soyez pas simple bon soyez modeste soyez humble mais ne soyez pas simple Il y a une très grande différence. projet événement 12 novembre mooy li gën a am importance loolu beaucoup de vidéos arrivent projet mi ngi projet album comme je peux l'appeler ay featuring ñoo ngi ñëw lenn lu ci jot Sénégal plus dañuy gunge incha taf taf. Merci beaucoup.